asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 7 mai 2020 ñëw ak yéen yëglekaay yi sunu làmb fa la ñuy xëy doore ko yëglekaay ba nag tey Pikine la xëy dem wan ñu ko nga xam ne nii moo di Ama de mu mel ni ki nag mbër la moo xam ne daal combat la yëglikaay bi wax ne vingt cinq millions ama na ko sans combattre maanaam encaissé na ñaar fukki millions ak juróom ba pare te laale moom defu ko sunu làmb xëy tey ñëw wax ñu ko mu mel ni ki ama daal saison bi moom yëglikaay bi ne 2019 jàpp 2020 bi moom mbër mi ci gën a riis ama balde la ndax encaissé te nag laalewul moo tax yëglikaay bi jàpp ne day ama dame na pion ba de daa mel ni daal jiite ñoom Modou Lo ak Gris Bordeaux Balla Gaye ba ca Boy ñaan daal daa mel ni ama dame na pion ba romb leen tuuti ndax encaissé na sunu làmb xëy ñëw tey wax nu ko keneen koo xam ne moom magam la di ëmma seen yëglikaay bi xëy na ñëw ci moom ak kay wax nag mooy ngay lu ma nga xam ne moo yor guy gi nekk entraîneur école Mor Fadam que mu xëy sampal ëmma nag moo di guy gi ne ko li leer ba leer daal ëmma seen ci boppam combat ak guy gi lu logique la maanaam lu jaadu lu xel nangu la dañoo war a sax laale waaye moom ngay lum da caa yemul continue dugg ci mbirum seen ba ak ni muy doxe alin saar mooma wax na ca moom ngay nag la mu xamle daal ne na li am ba daal Alioune moom li mu def ci làmb moom lu ñëpp teg seen i bët la nit mënu caa wax len loo xam ne ni lu dul lu normal kay def na ko waaye nag dana xanaa kay boo jiitee lu toll ci mbir ñaar fukk ak juróom benn moom dana fi mu nekk nii moom moo jot parce que nag taam def na ko maanaam li mu waroon a reñe reñe na ko waaye yemu ca Matar Ba itam ma yore sport ba ngi lum woo ko ne na ko nag mbir yi nga xam ne nii moo na ci làmb ko metti ne ci ay jafe li nga war a def yow Matar Ba mooy mbir yi nag nga jël ko jox ko kilifa ak mi di kilifa ñun président Macky Sall ngir mbir yi nag mu wax ci loolu mooy xam ne nii moom moo di ngay luum keneen koo xam ne moom su sunu làmb ñëw na ci moom ci xëtam mu njëkk mooy lagros bu faas ak defet ya nga xam ne tegalante na ko te ñuy xaar ak dikkaatam ci làmb ji gargata koo daan Moussa Ndoye daan ko Sa Thiès daan ko moo tax nag fi mu nekk nii moom ay mbiram jógaat ga nar naa metti waaye yëg li kaay bi leen li leen na fi de xanaa ñaari xale daal la ñu gis ngir lagros muy jën kayre bu sumbe jën doomi kayre wala kuwen sa bu lansaar nekk ci fa nga xam ne moo di ne nii xanaa kon fa la war a mën a jaaraat ngir taxaw moom Lac Rose keneen koo xam ne nii moom saison bi jàppal ne saison bi daal comme nii mu ëppal te ko nii maanaam nekk saison boo xam ne bu doy doy waar la daa mel ni moom nag des ko caa génne wala bokku ca muy bàyyi njaay dañ ko caa disqualifié rakki ka nga xam ne moo di Aziz Ndiaye daaw daaw nag moom tëggoon na Boy Niang ak Lac de Guiers waaye saison reen bi moom jotoon a def loola far nag saison ba dal di amuk jaxasoo yëglikaay bi xëy ñëw tey wax nu ko keneen koo xam ne moom mu nga ca États-Unis waaye nekk écrit lamsaar di super étoile étoile nag moom que mu xëy di défendre moo di rëg-rëg ne na rëg-rëg daal yoon la te xel nangu na itam mu def defee ki nga xam ne nii moo di tafaatin maanaam mu sampal ko ndënd ne na loolu moom lu war a mën a nekk la moom super étoile moo xëy wax loolu bu buñ fa jógee nag moom dañuy dem fa nga xam ne nii moo di ca la tribune la tribune moom dafa ñëw ci diggante amaabal de ak Modou Lo ci deux cent quarante millions yoo xam ne ni daal jàpp na ne est-ce que ñaari mbër yi danañ ko bàyyi mu jàll la tribune xëy ñëw wax na lu mel ni ki noonu ma jóge fa continuer dem fa nga xam ne nii moo di record record moom dafa xëy ñëw dalal ki nga xam ne nii wala boog ñoo xam ne seen xam-xam daal màcc na ci wàllu am lam moo xam entraîneur la Amadou Kati Diop ka nga xam ne ni moo di Max Margan Zallo Lamine Seck ba ca Ligue TV mu mel ni ki nag ñu ngay joxe seen xalaat ndax yëglikaay baa xëy tey ñëw ci rëg-rëg ci huit xam ne def na ko ci lamb te daanoogul ñu ne nag est ce moom li maa nga def toog fukket daanuwut Yékini def ko toog quinze ans daanuwut maanaam fukket ak juróom est ce que moom mën na koo def ku ne joxe nga ci sa xalaat père Max Mbargane moom ne na rëg-rëg ci wàllu boppam moom lépp loo xam ne ni mbër def na ko ci wàllu record war na koo mën a def ndax nag nekk na mbër moo xam ne ni day mbar la moo xam ne champion la te na la muy def Amadou Kati Diop tamit daa mel ni mbir mooma d'accord na ca jàpp ne mën na égale gars yi ngay liggéey zàlloo itam noona daal lu possible la waaye nag la ca teg loolu mooy waxi zàlloo Lamine ca Lutte TV tamit wax na lu mel noonu moom itam li mu jàpp daal ne na vingt daal xalaat na ne war na koo mën a def te du daanu waaye quinze ans moom daal ne na est-ce que loolu du bëri Lamine bu Lutte TV moom moo gisee noonu ba tey bu nu continuer ci fi nga xam ne moo di record Lac de Guiers numéro 2 moom ak koor ga Lac daal ne na fi mu nekk nii moom woor bu ko defee moom boole koog wax ju bari ne na loolu day diis ci moom trop du ko man loolu daal du ko attan waaye nag ne daal daal la muy gën a def mooy xëy na toog di seetaan ay combat yoo xam ne combat xale yi la noonu maanaam ay làmb ak yu mel ni kii noonu waaye daal nee na bu rupture ba jegeñee maanaam heure ndogu ba buy waaj a ñëw daal lag ne na foofu moom xol day seddu guy maanaam daal bég lool waaye nag ndogu ya ak lekk ya moom la ko ci gënal wax na ko ceebu ganaar lag ne bëgg naa ko bisaab tamit ak yu mel ni kii noonu loolu la wax maanaam bisaab ak ay xeeti baax baax lool la Lac de Guiers 2 mu mel ni kii nag jabar daal day soppi góor Lac de samay ruqe lay génne ay xeeti baax baax loolu soo amul jabar doo ko sañ a wax man nag bëggoon naa mu tekkil ma yan xeeti baax baax lay wax ginnaaw ceebu ginaar ba ak bisaab ba lag yan xeeti baax baax ngay wax salaamaaleykum mbokki suuf Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di leen wax eh, namoon nañ leen di ñëw tey eh, seen revue de l'arène comme ni ñu koy defee ak yéen chaque fois ma ci ànd ak kan chéri teneen Babacar nuyu naa loolu de naa ci loolu moom macha allah yal na la ci yàlla gën a fay séerité nag moom daf may neex ndax nag nopp na ma te nopp naa ko yal nañu yàlla musal di cat ak làmmeñ kon yow it séeri Moussa ñaar du noonu la demee ah, amet noonu la demee kon. waaw Babacar dañuy dugg tey ci waxtaan bi tàmbali ko ak fi nga xam ne ni mooy sunu lamb ñoom nag tey ñu ñëw indi kii di xam ne mooy Ama Balde nag ne saison bi daal mel ni mën na ci ñu ca des parce que moom ci VIP yi daal moom moo ci encaissé lu toll ci 25 millions. ah waaw moo tax sunu lam jàpp ne daal mooy mbër mbër mi riis mi ren neex na de encaissé vingt cinq millions te yaakaar na ne est que dina laale loolooy wax ji moo tax daal daa mel ni kon ama ren moom ah comme ni ko sunu làmb waxee daal waaw xay na nag moom la lalu gën lu kon ko te gën kon kenn képp ku nekk si làmb ji même ko tëgg tamit ku sañoon ku encaissé di nga bëre waaye nag ku amul la nga bëgg olof na da ngay am la fa sës rek ndax jaam ak pexe waaye buur yàlla moom mooy dogal encore une fois nag combat bu bu ñu ci dee wax suñu xel day dem ci Luc Nicolaï boo xam ne suñu nit la suñu waay ko ñaanal yàlla fa mu nekk si barke weeru koor gi yàlla na ko fa yàlla lu yàggul barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku nekk si kaso bi te ko di ko ñaanal tamit ñi que comme li may wax rek léegi moom nit la koo xam ne nit bu baax la daal di ko ñaanal jàmm bu baax a baax di nuyu famille rawatina doomam wili Babacar ñu jógee ci Ama Baldé ñoom ñoo seeti ki nga xam ne mooy Eumeu Sène di beneen doomu Pikine mais nag tey ngay lu moo xëy ci ñëw moom di wax euh, que combat mag euh, guy gi lu jaadu la lu war a mën a nekk la. waaw moom day ngay lu moom moo wax loolu moo yore guy gi olof nag ne ku ràcc jëmale sa kanam mu dëli waaw loolu la olof yi wax guy gi nag nekk na xale boo xam ne bi mu ñëwee ci lamb itam loolu la waaye mën a wax moom fexe na ba imposé boppam ci slogan ni muy doxale ci làmb na muy waxe ak na muy bëree te itam defe naa bi mu ko defee réccu ko ndax gis na la mu ko jural te itam defe naa ne Eumeu Sène amatul lu muy prouvé ci làmb ndax ku dégg euh, dem ba nekk roi des arènes amator compte yooyu rendre kenn kon defe naa tey li ko dese ci làmb bu ko neexee maye sens yaa ngi dégg te dégg nañ ko ci ay waxam yaakaar naa mu ne ku ko ku mu estimé yaa ngi dégg kon yaakaar na ne war na mën a bëri ak moom ci bés yaakaar naa kon daal loolu te itam garab ci kaw lañ fekkante ñoom mbër yooyu war nañu mën a may ñuy jóg ci sens ci suuf yaa ngi dégg kon tey Ama Baldé Modou Lô bi Balla Gaye 2 booy Niang ñu ngi koy wax wala booy Niang tafa Gris Bordeaux wala Boy Niang Tapha dama seen guy yooyu yëpp ay combat yu possible li war a mën a nekk la. keneen ñëw na ci wàllu may chance boobu Babacar ngay wax muy euh, super étoile moom nag euh, mi ngi plaisel ki nga xam ne mooy Reug Reug parce que nee na tey bu dëkkoo Tapha Tine du jaadu la war naa mën a bëre ak moom. waaw ko déggee mooy lay mu ngi koy layal ci nekk dëkk bu mu dëkk Tapha moom lu jaadu la waaw loolu mooy làmb. mbër moom saa bu demee ba euh, am na ñoo xam ne tey ci làmb du ñu sampal ndënd tafaatin wala bu ñu ko defee kenn du leen bàyyi xel waaye nag euh, comme li ma la léegi làmb day dox di dox di dox ba benn ma yow nga ñëw fekk fi ay nit sampal leen dënd di nga dem ba benn moment yeneen dina ñëw sampal leen dënd kon rëg-rëg yaakaar naa bu sampal leen dënd tafaatin itam xel war na koo mën a nangu yaa ngi dégg parce que làmb moo demee noonu mbër yi dañuy fekk sente yaakaar naa nag ndax dinañ bëri wala duñ bëre loolu tamit combat bi li ci ëpp lu bëri day dépendre ci tafaatin parce que am na lu mu dépassé Reug Reug ci làmb ndax mbër yi mu jot a bëreel euh, lool loolu waa standing baa xaw a kawe quoi xam nga ku bëree ak Balla Gaye bëre ak ki nga xam ne nii moom mooy Bombardier loolu rek desaar dafa doy quoi te yaakaar naa kon waaye waaye nag làmb bu baax noonu Reug Reug itam mu ngi ci yoonam di ñëw waaw Babacar ñu jógee foofu dem seet ki nga xam ne tamit euh, mooy Lac Rose Lac Rose nag euh, xaw a gëj ci làmb depuis defetam ak euh, Moussa Ndoye tey sunu làmb nag ñëw ci defet yi nga xam ne teg leen na ko ak adversaire yi nga xam ne ni war na mën a bëreeg ñoom waaw moom defet yi daa xaw a teg loolu boo xoolee moom ga Garga Mbossé da ko daan Sa Thiès après Moussa Ndoye mm-hmm. waaw loolu nag ci li ñu seetlu mooy xëy na nekkul au top ci wàllum santé <clears throat> maanaam wérul parce que problème mu genou lañ doon wax si moom bañ ne dafa war a opéré dafa war a faj mel ni nag loolu daa mel ni kon parce que gisaat nañ ko ci ay xibaar wala ñu dégg ko ba muy entraîné di waajal boppam mel ni nag soo am du yomb actuellement yaa ngi di parce que <clears throat> am na ñoo xam ne maase woon na ak ñoom ci làmb muy ñoom Ama Baldé ñoom Boy Niang ay ñoom Sa ay mbër yooyu ay garga buñ la daanee te xaw am ay defet ba pare nekkoo oto dañ la dépassé tuuti kon nag soit bi moom il faut que tubaab di wax rek il faut pour mieux sauter moo fay des maanaam tey buy reculer nag faw mu laaleeg ñooñu ndax ñooñu tam ñu ngi ñëw muy Diène Kaïré wala muy Quench ak yeneen xale yoo xam ne nii mën nga fa laalaat pour mën a avancer waat jëm ci kanam. Hmm. Babacar dañuy jógee foofu nga xam ne mooy sunu lamb dem la tribune fekk fa sama xuloo waale boobu Pa Moussa Traoré moom nag tey mu ñëw ci li nga xam ne ni mooy Modou Lo ak Boy Niang di nax ñaari mbëri dinañ seetaan xaalis bu toll ci 240 millions di leen rëcc. Pape Moussa sa xuloo war a dem mais man sama waay la de borom baax la ah <laughs> maa ngi koy béggee Pape Moussa waaw ah loolu mu laaj jar naa laaj 240 millions ñu bàyyi ko noonu mu dem foogu ma ko ay ayis ak dëkk bu metti bii corona bi ñëw dugg ci réew mi metti woon àll bi neen corona ñëw gën ñoo def musiba. ah defe naa loolu bàyyi ko muy dem du wóor waaye rek comme bu ñu ci waxaatee rek mooy combat Ama Modou rek wax defe naa ne euh, xaalis boobu moom xaalis bu takkoo takkoo la di ñaan yàlla rek corona jeex ku ko tëgg génn ñu mën a bëri ñoom ñaari bëri waaw. dañuy daal di jógee foofu dem fële ca record fekk fa Abou Ndour moom nag mu ñëw tey ci Reug Reug Abou Ndour ñëw ci ñi nga xam ne ni yàgg nañ toog nañ ay diir balaa ñuy am li nga xam ne ni mooy defet maa nga de 10 ans. Euh, Yékini 15 ans muy laaj ndax tey rëg-rëg dina dem ba romb record ki nga xam ne ni mooy Manga 2 ak Yékini waaw wax na loolu la xëy tey samp laaj laaj ci ay ñu joxe ci seen xam-xam ku ci ne mais boo xoolee ñoom ñëpp li ñu wax muy Zallo muy Amadou Kati Diop muy Max Mbargane ba ci Lamine Seck TV ñoom ñëpp ku ne wax bi dafa xaw a méngoo sorantewul kani parce que yoon wi mu nekk bu ci continuer loolu war na mën a nekk waaye dafa am lu kee wax ku mel ne Lamine li mu wax mooy moom jàpp na ne 15 ans yi daal moom xaw na ko jaaxal mais xalaat na ne war na mën a def au moins 20 combats moom fu loolu la jàpp waaw rëg-rëg nag comme olof Youssou Ndour dafa am lu mu wayoon doon na wax neex na lu waaye dégg ko raw dégg dafa am solo te ñun da dem ci làmb may dem ci làmb biram di dem yàgg di dem xam nañ mbëri bu baax a baax a baax yaa ngi dégg dafa am loo xam ne mbër yaa ngi dégg mais nag des fois Sénégal dafa metti boo defee sa analyse wala nga wax li ñu ne dafa far ak ay sol dafa contre biram te fekk na loolu amul mais nag li nga gis ngay wax te man nag man Babacar da fekk maa ngi yor micro bi di yàq pour askan wi li ma gis bu soobee suñu borom dinaa ko xel di wax mais rëg-rëg ni ma ko gisee ci làmb mu di ko entraîné fonke ko li muy def ay satu fay bu ci continuer ah mën na ci am lu ne de daanu nag ak daan moom mbirum suñu borom la ndax mbër di nga pare physiquement ñëw bëri ñu daan la te mu ngi ci yoo xam ne daanoo gudd kon daa mel ni mu nga ca yoon woowa wax la ca des nag mooy dañu yónni yàgg rek waa ñaan yàlla yàlla may ñu fan gudd ak wér-gu-yaram ñu fekk amin Babacar na ne la ndaje boo gis seetaan na ca daal léegi dañuy daal dem jeexal ak ki nga xam ne ni mooy euh, Lac de Guiers Lac de Guiers nag ñëw ci kooram parce que moom nee na koor bi boole ko wax ju bëri ndax àndul <laughs> moom daal heure ndogu bu jotee daal fa waaye lag lag laga baax lag kay heure ndogu bu jotee ñëppay bëgg ku yendoo xiif suba ba ngoon ndogu rek jot ah da nga kontaan ay sa waaw wax na dëgg waaye woor di wax it da dul yomb xam nga woor di wax loo xam ne amul farata amul na moom da ngay dee ba tas lag daal mu ngi noonu daal waaw man de ceebu yaa xaw ma nu mu ko ci waxee ceebu ganaar waaw ne na moom yooyoo ko ci intéressé ak bisaab bi xonq yeeg yooyu ak baax baax xeetu baax baax Cyril ak madame madame Cissé waxal ak papis ndax mu tekkil ñu loolu xam nga temps dafa mokk des fois. baax baax mun na bëri mun na doon ay salade de na doon ay amuse-bouche na doon lu ah. Ah, na doon ba ay lekk rek. ah lak de lak lu baax xam nga li tax wax la ko boobu amagul jabar boobu maa ngi nekk ma jëli ko ndogu maak Lamine kera la mu def ci ay xeeti affaire moom doy musuma gis dëgg yàlla. ah jëli naay mbër ba tàyyi nag waaye lag ya mu def kër gisuma ku ko def moom kon nag xam naa bu ca boolee tey yor soxna dana gën a doy waar waaw mais Aïssa tamit may dalal xelu ñi nga xam ne ay soppee Bathie Seras lañu wala ay supporteram ndax démb wax nañu téléphone mm-hmm. macha allah mu ngi tane ñaanal ko yàlla gën ko wéral barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam itam nit la koo xam ne am na lu mu def ci làmb marqué na ci empreinte mm-hmm. tax na tey ay mbër yu bëri di nekk ci làmb di reñe euh, te ci moom la ñu jaare ku mel ni Boy Faye da koy faral di wax kon def naa ñu ngi koy ñaanal encore une fois yàlla gën ko wéral moom Bathie Seras ak bépp doomu aadama bu wéral mm-hmm. waaw Babacar dañuy wax amin euh, ci ñaan yooyu noonu di ko ñaanal tamit euh, Ndey Kumba moo tax ngeen gëj ko gis moom tamit euh, yaram bi jaga di fan yee yëpp mais tam ñu leen di ñaanal rek képp koo xam ne rek yaa ngi si lal hôpital wala yaa ngi sa sax feebar ñu lay ñaanal rek nga jóg ak jàmm ak salaam Babacar. waaw Ndey Kumba Fall waaw moom du mën a ñàkk parce que moom yaakaar naa ne dem na ba fi nekk nii ku ma gis ne ma Ndey Kumba te ku ko gis tamit laaj Babacar mm-hmm. loolu nag bu rafet la koy waral ak nekkin bu mu nekk koo xam ne itam liñ naan xandor bu demee ci war wàcc na noonu la demee moom dari jàmbaar bëgg liggéey loolu moo tax ba des fois lu bëri di ko arrivé mais nag yàlla na ko yàlla wéral di ko nuy di nuy yaayam ak doomu Mouhamed Diouf di nuy internetu Leewtoo TV yëpp waaye di beral nuyoo nag ki nga xam ne nii moom mooy xadi bu Balla gay de wala ma ne xadi laax su ma ne xadi laax ca Colobane ñëpp dinañ ko xam waaye dafa bëgg Balla gay ba amu ci sago maa ngi koy nuyu moom xadi yaa ngi dégg soppe Balla Gaye de la nuyu abi lum bu depuis ca Pikine ginnaaw raay nuyu Asi Diagne bu Modou Lo tamit ca Mauritanie di nuyu Issa bu Eumeu Sène ak Lamine di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi soppe mbër nga hélas bu amaatam du ma ko fàtte ca Yoff maa ngi bu baax a baax di nuyu tamit waa ahlu lamb yëpp di ñaan yàlla daal ay aysa corona mi nga xam ne dafa noo tëj rab nii koñe yàlla na ko fi yàlla jële barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais xadi daal xadi bàll koy xadi laax tey revue de l'arène bi moom yow la ko Babacar may ñu leen jox rendez-vous suba incha